ba tey yéen a ngi lul seeseen Eumeu Sène ginnaaw bi ñu ko teeree yéen a ngi ngooyee ba tey ngooy ak lul seeseen defe naa benn la ah docteur a ngi toog Eumeu ak euh, Louis ak suñu papa Cheikh Senghor Eumeu ngi lay nuyu di la la ballu ak si weeru koor gi ak korite gi ñu jógee waaw jàmbaar du ma def di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi gërëm sumay waajur yu mag di baalu ak Sénégal gépp di baal ñëpp ak neen yàlla nañu yàlla suñu borom boole jégal yàlla nanguñ suñu koor koor gi bañ a nekk suñu mujjanteelu koor yàlla def ñu fekkee ay déwén déwén di ñaan kilifa diine kilifa aada yi yàlla bàyyi na fi njàgg fi sa wér di nuyu Sénégal gi yëpp nag waaw fu waay nekk rek ñu ngi lay nuyu bu baax lay sant. diggante Eumeu Sène ak docteur Macoumba Diouf. waaw loolu moom wax dëgg yàlla dëgg rek ko alal waaw yàlla suñu boole te yàlla suñu borom rek tax waaw vraiment mu nekk suma mag nekk suñu kilifa mook soxnaam. vraiment macha allah daal waaw nit mbokkam ñu nekk ñu waaw waaw. <laughs> kon daal ëmb dafa ñibbi. waaw xam nga tey suma wàllu papa moom ku ne xam na ni séeréer pire sama wàllu yaay joolaa te ku ne xam na ni séeréer ak joolaa nuñ men man nag sens boobu laa am dama am sens séeréer yi jur ma ma am sens tamit joolaay nekk sumay may ma nàmp soow joolaa waaw kon wax dëgg yàlla man fii suma dëkk la. tey dama doon dégg da nga da nga fi waxoon ci benn signature contrat nga ne mbër mi bërikat bi moo daan ñëw mais léegi mbër mi mooy ñëw mu mel ne au fur et ñuy dem rek dañuy gën a gis Eumeury dëggal loolu maanaam mbër mi di ñëw parce que dafa ni dëkk yi ñu lay gis nii dafa mel ni euh, ay jamono Eumeu daawu fa faral di kii mais léegi non man ngay mbapat naa fi mbapat naa ci si su mbokk xam nga mais tey tam aussi di am contentement rek ci question boobu parce que tam aussi nekku moon mbër bi du leen lu dul rek xam nga mbër dafa am kon nu ko suma mbokk mbër mi waxee léegi dafa am jukko yu ñu yu nekk ci mbër mooy ki xam fi ngay lekkee gàttal sa tànk yu demee noonu yu bëri ku nuyu nga am nga am tuuti njortu ñaaw njortu mais yàlla def na loolu nekkul woon ci man et puis tamit aussi delluwaat tamit sumay mbokk xam ma ñu uuf ma te ba ko defee ba léegi tamit aussi vraiment aw ma rëccuwuma ko waaw loolu rek mu mel da dugg tamit ci loo xam ne ñëpp ñu bëri dañ dafa diis muy sa diggante ak Modou parce que combat revanche la tey Eumeu Sène actuellement combat bu fan la ci toll nii. man dara diisu ci man waaw loolu moom ci man dëgg yàlla waaw non dëgg yàlla amul lenn diis parce que bu ñu ñi wax dafa diis xëy na adversaire bi ni ngeen bëree woon ak la ca xewoon moo tax mais fi nekk nii c'est le roi des arènes tey mu mel ni tournir amaat na. waaw làmb la rek làmb yàlla suñu borom daf ñu laa may muy neex. kon su fekkee fukki lu toll ay ñaata combat lañ daan toog naa dix ans daanuwuma waaw kon benn loolu dara waaw loolu kay buñ ci jógee sax dañoo yokk waaw làmb rek jour boobu moo waroon daan rek mais ñu ñaan yàlla combat bi ne suñu kanam yàlla may ñu dam <laughs> non dëgg la non dañuy dañuy xam daaw dama fi ñëw parce que daaw dama fi ñëw yaa ngi sa combat ak euh, Bombardier taxaw ñu am lu ñu fi déggoon ci ndam yàlla def loolu ren nga ren nga ñëwul sa bopp ñu am luñ luñ fi déggaat ci sa diggante ak Modou Lo maanaam wàllum ndam. d'abord lu may def sax muy nuyu sama mbokku mbër yi <laughs> Saliou wax dëgg yàlla waaw li mu fi wax yëpp dëgg la dëgg la parce wax dëgg yàlla ay mag a rakk la sax laa wax lañ nekk waaw Saliou Diouf nit ku baax a baax a baax tey soo gisee ma gis ko kontaan mbaax gi mu dund ak man la te tey aussi li tax ma gën a kontaan bokk na ma fekk tamit su may mbokku mbër ma dégg suma doom day jël fi kàddu yu rafet waa Daouda fu mu mujjee rek mooy que làmb sport bu boolewul warut a tàkkalee tey ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi tey dama ñëw fekk leen fii ñu bokk aar bi xam nga yàlla def ñu tamit aussi ñu def ci lu rafet kon tey lu ma def du am contentement bu baax a baax a baax lu ma leen fekk fii du dëgg di nuyu tamit aussi vraiment suma papa suma maam waa di koy ziar bu baax a baax di kontaan tamit si sumay mbokk dalal bu ma dalal waaw kooku tam maa ngi ci am contentement bu baax xam naa a bëri parce mu toll nii moom dañ der dañ toll si dañuy virage yi du dëgg te combat bi daanaka ñëw na waaw waxtu di jëf lu bëri ba foofu mais xanaa sa diggante ak Yaxya ñi ñoo taxoon bëree woo ko waaye Yaxya suma mbokk la rek dañu bokk nekk équipe nationale xam nga après ah, feeñ waaw mooy lu mu lay expliquer rek xam nga tey nit mbokkam ah, waaw man moom ak Saliou dañu bokk nekk équipe nationale mu nekk tam aussi vraiment sama mag bu baax xam nga ñu bokk fa nekk nekk bu rafet mu dara mu si ñaaw man sama mag la waaw làmb nag yàlla def na bëreewuñu te tamit aussi man toog naa déclaré na làmb dootuma boole ak Yékini lu tax mu wax loolu mbokk la moo tax ma ne dootuma bëri ak Yékini mbokk la rek. mbokk gi kañ la feeñ. non da nga ko dëkk quoi moo tax ñu laaj kañ la mbokk gi feeñ. waaw mës naa ko dëkk làmb parce que lu tax ma dëkk mooy dafa jàpp sumay mag di leen daan waaw xam nga non mais nit mbokkam. nit mu lu weesu lu gën a rëy mbokkam. mais loolu tax na nga wëjee wax moom ba tey. non du la rek. Oh, làmb ji wax amatul parce que combat waaw maa ngi nuyu nag. ma bëgg koo delloo ngërëm. delloo cant doon wax sama mbokk yi ne jërë ngeen jëf yéen ñi ma ko teerule fii doon nuyu di sant sama wayjur suñu papa Cheikh Senghor di wax ne kontaan naa ci mbokk ji famille bi ñoom Pierre ñoom Jo ñoom Robert waa kër gi yëpp nga xam ne euh, samay mbokk lañu samay xarit lañu mag lañu ak rakk ci sama soxna Louise Senghor ma gërëm leen kon gërëm góor gi gërëm famille bi waaye gërëm waa dëkk bi maa ngi doon wax ci séeréer léegi ne lii xam ngeen ne bu doon xew la wala ñu yëgle ko séeréer yi nga xam ne ñoo dëkkee fii yëpp xam ne làngum rek la ñuy nooyee te am rek la ñuy nooyee kon fii kenn du fi xej waaye ci ci ci ci secret laa leen nañ fi ñëw jaar rek mu dem bégal nit ñi ñu yeewi ko mu mu dellu kon toogaay bi du mën a yàgg jeetaay bi fa la ñu jëmit du mën a yàgg ndax ci liggéey ak programme bi mu nekk waaye mënuma ñàkk gërëm ak sant samay bokk maa ngi gërëm artistes yi tamit muy watere yegg si gox bi yëpp champion fu dëkk di nekk rek ba ci biir île am na champion bu fa jógee ñëw fii fii lañ yenn ñoom ñëpp loolu nag ku mu tuuti ci yow dara du lay ci yow te loolu sama jëmm ju ñàkk solo ji man ak sama soxna ak jëmm suñu rakk suñu xarit ëmma moo ko waral kon ñoom it maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant doon wax léegi nii nag ne ñu ngi waaj dem nii ca làmb ja wax ne soxlawuñu wut sécurité ñoom la champion dafa ñëw pour bëggal askan wi bëggal waa gox bi loolu aajowul jonjoo aajowul sonal ko aajuwul bousculer ko am leen doon defal loola jotawul ak songanteeg moom indil ko ay coono te fi mu nekk ci liggéey ak récupération ci la toll loolu kon yéen ancienne gloire yi teg naa ko ci seen loxo ba ba muy génn programme bi di ci bokkoon kon ngeen xam kon man kese maay assuré loolu kon loolu dinaa seet ba xam nu ngeen nu ngeen mane kon gërëm naa ñëpp euh, sant ñaa ñëpp di wax ne nag ay doomu séeréer ngeen yéen ñëpp ama di suñu doom bokk ci ñun di suñu njaboot dëgg ma lu am solo ngeen xam ko ma xam ko muy làmb di làmb ci làmb yi ñuy ñaan ngeen ñaan lañu yàlla may ko ndam lu gën a taaru ci ndam yi mu am ba muy bëre ak léegi yal ko yàlla may ndam bu ànd ak ala daw mi ko yàlla def te comme yéen ñëpp doomu séeréer ngeen doomu gox bi ngeen ku nekk ci yenn am na lu la yàlla may ci nii ak ci nale na dem ca loola yàlla boole ñu nangul ñu ngi koy tàllal suñu loxo mu may ñu ndam loolu it maa ngi koy ñaan waa dëkk bi ak waa euh, gox bi lii daal mooy kàddu yi nga xam ne euh,